الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيلو بي كوشي تي بي جسان فيلو بي باقي تاكي يرمت بنا صلى الله عليه وسلم لكفي نبي قمنا موي موي نور البصر نغا خمنا مومنا يقول تاكي يرمت صلى الله عليه وسلم موي جار جار بنا خمنا شلا ويجيتي نكي مني بصيري doon way yonent bi sallallahu moom itam mu daal di tëggin ko tëggin mu mel noonu li moo doon aada ci gàmmu gi gàmmu gu mag gi dafay def hamziyatul busayri gàmmu ñaareel gi nag moom mu def euh, nuurul basar nuurul basar ma li muy firi mooy lii leeral bët yi waaye nekk tey kay bi muy leeral bët yi dem xol yi la njëkk a leeral day muy Mawlaana yàlla na ñu ko yàlla fayal muy Mawlaana mu ne nuuruhu awwalu wujudu wujudan wa huwa aslul usuli wal anjaam yàlla fi nekkoon ba fi dara nekkut bu fi lépp jógee jëm yàlla joojooy fees amul lu ko jiitu amul commencement yàlla fi nekkoon moom kenn rek loolu moom mu ne falaasifa yi ñoom ñëpp kenn ku nekk tëkkin nga ko ci gis yu nga xam ne bu ñu xamee ñii tuddee ko ñii tuddee ko xayula ñii tuddee ko malakum kurubiya ñu tuddee ko xel mu njëkk mi xel mu ñaareel bi waaye yooyu yëpp dañuy def ci seen gëmeel loo xam ci la ñuy àggee li nga xam ne moo fi nekkoon bu fi dara nekku rek day nekk jëm yàlla yooyu fi nekkoon ba fi dara nekkut muy te moo njëkk te du fi mas a jógee te ak ñàkk mosu ko jiitu rek day mu nekk nag kenn xamut boobu kañ la kenn xamut kawkab bi nga xam ne mooy àddina bi nga xam ne ci lañ nekk rek benn ben addi benn kii la la benn bidiw la ci bidiw yi nga xam mooy bidiw àddina yi nga xam yàlla moo koy doxalal ci kattanam nga rek waaye bi nga xamee ne bëgg naa bind àddina bi dafa jël boppam li nga xam ne moom la koy fan waaye mooy dafa jël boppam dafee ko muy matière première bi nga xam ci la bind lu bind muy sallallahu alayhi Wasallam. bi fi yàlla nekk bi fi dara nekkul lu muy li nga la ñu ko defal mooy dafa jël jëm jëf jël ci boppam def ko mu yonentu yàlla muhammad xaqiqatu muhammad yee booba tuddee nañ ko tuddee wu nekk waaye mu ñi nga xam ne aarifu billaahi nga xam ne xam ne yàlla ñoom dañ ko tuddee mooy mooy mooy bi nga xam ne moom la tuddee mu xaqiqatu muhammad yee nga xam ne lépp lu yàlla bind ci loolu ko bindee ak day mu ne ba nga xamee ne yàlla moo fi nekkoon muy daya wéet daya wéetuwaay te suufi lépp jógee moom moo fi dara day ci la def xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya boobu yàlla nga ko jëlee ci jëmmam mu mën daal di ne ama rek su fekkee ne maanaam su fekkee ne yàlla la iraadatu la ba mu bëggee bëgg bi yàlla bi moom am na moom def kon ba mu ko bëggee rek la nekk da di xaqiqatu muhammadiya mu am te mës a ñàkk ndax mu nga soqeekoo ca la nga xam ne dara jiitu ko te mës a ñàkk rek day muy jëmm yàlla ji mu nekk fa mu nekk di sàbbaale boromam di jaamu borom kenn xamul fu mu ko doon sàbbalee fu mu ko ba mu soobee yàlla rek mu daal di def te jël lii te jël lii mooy seetlu lu mel ni soo jàkkee sa bopp ngay gis yaa ngi ci yow yaa nekk te nekkoo ci loo yë loo def mu def ko rek day ma nga fa te nekkoo fa rek day foofu la yàlla mën a woon a génnee rek pour wane yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bindakaat mi nga xam ne moom la ko bind su fekkoon ne yàlla dana am melokaan kon melokaan woowu rek day mel day muy dayob taar dayob mat bam ko ko defé nak mom yonent bobu sallallahu alayhi wasallam mu daal am ña am kersa ci bopam gor soko defare teranga li gëna bari moy mooy dafay génn ñak ñaq woowu moo njëkk ko ci yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam daal di def ndal suuf motax tax daal di sokkeewu géej moo tax mo moo te mo gëna bari te mo te te te moo ëpp rek day geej goga foko fekk geej melokanu geej moy da fay pal pal di yëngatu dara lu ko lu may lu may lu may jëm yonent ya boobu nga xam ne ci la nekkoon rek day muy lox lox booba moo moo jur ngelaw lox booba moo jër mooy ak yëngatu booba moo jur purit purit mooma nag ngelaw na di ko fu ba mu doon ba mu doon ay ba mu ay xeer xeer yooyee dem di fenqlaande ba saxat génn ca gannaaw gi nag bi mu soobee yàlla fekk dafa bëgg a bind àddina bi mu daal di jël ca purit ma ak suuf sa dafe suuf sa daal def ko muy suuf purit ma xeer doñ yee mu def ko muy asamaan koy mu fenqlaande saxat génn rek moom la fekk nag yàlla dafa gaar ñooñ kaw ak ñoom suuf ne leen moom bi dafa bëgg bind ay doomu aadama yoo xam ne dañuy nekk ci àddina bi ñi ko neex mu dugal leen ci kër dëgg ga nga xaye moom mooy moom la gërëm dëgg day ñi nga xam ne ñoom neexuñ ko ne mu daal yóbbu leen ci kër safara moo tax ba nga xamee ne kóllëre googu yàlla gaaral na ko ñooñ kaw ak ñëw suuf moom la alquran di nettali inna aradna l amaanata ala samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان من بام ديمي غار كو نيون كو اك نيوم سوف اك مينا كون ييب نيوم نيب نيو غانتال فك نك ني داخ داغي داف لو خامني دا فاي موي سانديغال نيون ملائكه سون جيكو موي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون ملائكه خموت لوماي توب نديغال باي تري دو ليك دو نان دو داف دار لوماي دي سابل بروم نيوم نك ني دال دي غار تي لولا ني يالا اتجالو فيها من يسر فيها ونحن سر ونحن wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka mu ne ndax da ngay bind ay ak minaakor yoo xam ne dañuy tuur de di mooy sa ndigal ñun suñ jukko ñun malaaka mooy topp sa ndigal rek bàyyi sa lépp loo santaane rek ña nga ca loo santaane nekku ja yàlla ne leen xam naa loo xam ne xamu leen ko fekk nag ba mu gaaralee ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñoom ñëpp ñu gàntal mu gaar mu gaaral ko aadama aadama nag ne ma su fekkee ne sa ngërëmaa nag ki rek man mu ne ko aha danaa nag mu ne ko moom caag su fekkee ne sëgg na maanaam nangu naa mu ne ko yow mi nga xam ne yow yaa nangu rek gi nga xam ne gaaram naa ko mbindaakoon yëpp ñoom ñu saak ñu gàntal yow li ma lay def mais décoré mooy ma def ma def la ngay ngay def sa ndigil ngay yonent maam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa mel ni aadama mooy maam yonent waaye eh, yonent bi kay dëgg-dëgg moom mooy maam yi aadama mooy maam yi maam yi mooy maam yi bàyyi rek day moo fi njëkk lépp loo xam ne def nañ ko ci àddina bi muy mbindaakoon mbindaakoon nag lépp lu dul yàlla rek muccoo ca rek day lépp nag ña ngi ko jëlee ci xaqiqat muhammadee booba ba nga xamee ne def nañ ko mooy nag moom mu làmb yonent nag yàlla daal di laal làmb ko odd ko bépp kéedaay boo xam ne yàlla yàlla ba yàlla am na ko rek day yàlla àdde ko ca kawam nga màggal ko ca màggal ga ba nga xamee loolu la bu sayri di wax ne ne كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طوال السماء من يونك لك لنيه أمي يونتي نك لنيه أبي أسر دارواي يو يا سود نيب سوف نيني دي أسمان أسمان من يكبر مو يونتي على محمد صلى الله عليه أسمان نيال موي مولم يونتي نك خبنا من لم يساوك في ولاك وقد حال سنن منك من نم أمونيو يو كيو نخ sa maga sa mataay bi sut na leen min ka sanan wa sanaaun ak yëkkatiw ak leer rek boo xam ne mënatuñoo mënatuñoo loolu mu ne sut nga leen ci xaqiqa ma li nga xam ne ci zahir ak ci baatin tuñ laa jot li nga leen sutee ci zahir mi ngi mel ni rañaan ma nga xam ne xar nañ caa àgg ba nga xam ne yàlla ana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëwal ko bi mu ko ñëwee fekk mi ngi ci màkka ci day néeg ma muhaani mu daal di jël ko yóbbu ko ca Kaaba ga ba mu demee yóbbu ko ca ca mu daal di julli ñaar rakk mu daal di xotti xolam bu njëkk ba xotti bu njëkk bi mi nga xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu amee fukki at ak ñaar ba nekk ci xalimatu saadiye ba mu amee ñaari at ba déet ba mu amee ñaari at ñaareeli at ba ba mu ñëwee fekk na xalimatu dafa d'accord yonent mi bàyyi mbokki yonent bi moom aminatu ne ko jox ma ko ma nàmpal ko fekk nag dafa ànd ak ay moromam ñoom ñëpp biñ ñëwee jël gune yi mu nga xamee moom diirim la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf judd dafa juddaale jirim bàyyi mu ne yàlla bëggut kenn am ngëneel ne yaa dimbale yonent bi sallallahu alayhi moo tax ba muy bañ bañ koy may yaayam aminatu ca weeru ñaareel wa ci la Abdoulaye di tukki Abdoulaye commerçant la woon muy dem ca dëkk booba nga xam ne su yonent demee ba yàlla yónni ko ba mu gàddaay ca foofu lay jëm rek ca Madina mu daal dem foofa ba mu demee foofa daal di dee fekk yonent baa ngi ñaari weer ci biir ndeyam weer wii nga xam weer wii ñu yàlla def ci ay ngëneel weer ci la yàlla def leer googa nga xam ne yàlla dañu lam tasal fii dama ay kaw ni tuxtaaru laka umaraat wal abaaw yàlla dañu dina tànnal ay ndey ki baay la ko dalee ca aadama ak xawa ba ci anim aminatu ak abdoulaye mi la jur ak day mu ne mba soo toppee ibn abbas mu ne bind na ko juróomi téeméeri ndey ak juróomi téeméeri baay amul ci benn benn benn benn sëy boo xam ne sëy bu daganul la wala koo xam ne dafay bokkaale yàlla rek day ndax yàlla dañ di ko tànnal ay ndey ak ay ndey kii baay ba mu ko tànnalee ay ndey ki baay ba mu àgg ci Abdoulaye moom nga xam ne képp koo xam ne leer googu nekkoon na ci yow nag yàlla yàlla dafay def daf koy def leer googu muy feeñ ci lii li óor mooy aadama moom nga xam ne moom mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi ci zahir waaye li nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg mooy yonent bi mooy baayam mooy bàyyi mooy mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi bàyyi maam ndax moom rek ka fi nekkoon gannaaw yàlla rek day yàlla moo تجل لي بنيك بام موي فنيوا يا الله بي بابا بابا امون امون ماندرغا بام تجي تجل لي نيا ربا نك بابا تي لك دافاي ادم ناخ مو كنت كنزا لم اورف فاحببت ان فاحببت خرقا فاردت ان ان يا احببت كنت كنزا لم اورف فاحببت ان اورف فخلقت خلقا وبه يعرفوني نكون دي ام لم وكان كن خم ما بك ني خم موتاخ ما داف يونت يالله محمد صلى الله su ko defee ci la ñuy bindee mbindaakoo ni su boobaa nag ci la ñuy nit ñi ni ni xam xam yonent bàyyi mu ne yàlla dafa niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañoo niroo niroo ba nga xam ne seen différence rek mooy kii moom maye kii lañ may rek day yàlla fi nekkoon moo amee woon yëpp waaye ba mu mayee yëf ba mu mayee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu odd ko ci mbooleem mbooleem mbooleem mbooleem mbooleem ku dee yi nga xam ne yàlla oddoon na ko rek day bi ni mu leen sutee mooy bam rañaan ma bañ ko fekkee ci nekk mu aan ñu daal di ñëw jël ko yóbbu ko kaaba ga ba pare mu andi ko daaba boo xam ne daaba bu tumuranke la sut na mbaam sut sut na fas fasa ko sut te ah te moo sut mbaam rek day mu daal di ne mu andi ko su fekkoon ne fasu guddi la da ñaan fasu guddi doxul jaam rek day ba mu demee nag mu daal di jël ko mu yóbbu ko mu daal di dem rañaan alburaax booba yàlla daf ko defal karaama yoo xam ne fu bët ba dare oh, oh, daal di dal fa mu daal di naawee ca mu daal di rañaane ca Makka daal di teew ci bayti maqdis te booba doxam ñaari weer la foofa la fekk mboole am ambiya wal mursalina moom ñëpp ñu dajee nag mu daal di ñëw fekk ñu ngi koy xaar ba ñëwee jiite leen julli ñaari rakka ba mu sëlmadee mu ne mu mar mar woo xay masu koon mar ci du ndam bi rek day mu ne jibril dafa mar jibril andil ko ñetti ndab bii meewa ci nekk bii ndox ci nekk bii ci nekk ma mu daal di tànn ma meew ma mu ne mu ne sant nañu yàlla bi nga xam ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi tànn na meew su tànnoon sàngara kon kon xeetam dañuy murta rek day waaye ba nga xamee ne tànn na meew day kon ci ci la ci la daal di feeñee rek day ba mu jullee mu ne bañ génnee nag mu daal di fàkk ci suuf fekk benn jaaru boo xamee mi ngi suuloon ci suuf mboolem yonent yi fa lañ daan eew seen daaba ya mu daal di ne bam ko eewee nag keroog bi yont bi di rañaan di makka medina beti maqdis di dem makka di dem ci asaman mu ne kérok boba mom jibril mo taxawon tegel ko degel digel degel faswa su fekke na jibril moy sangi malaika yi tam moy bëkk neeg yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu xamne ni yonent yi gëne ni ñi noonu la gëne malaika yi tam moy sangi mbolam ko ni ci kaw suuf rek day mu daal alburaax daal di yëngatu jibril dal di xaju ko ne ko alburaax yonent bi nga xam ne képp ku lu yàlla bind moom moo ko gën a tedd ngay def nii ci kanamam mu ne ko damaa bëgg rek mu daal di fàttaliku mu rek day bindal ma ak mucc rek day mu daal di mu war nag ba mu demee ñu ne alburaax ñi ne def ko rañaan noon rek day mu daal di jógee ca ma ca bayti maqdis bët ba dal ca asamaani ñaare bu njëkk weewa daal di dal fa mu daal di fëgg ñu ne kan la jibril ko àndal mu ne muhammad yónni nañ ko yónni nañ ko marhaban doom ju tedd ji marhaban yonentu yàlla bi nga xam ne moom lañ doon xaar rek day ñoom ñëpp xamoon nañ ko ndax yàlla wax na ko ci alquran yàlla mas ta yónni benn yonent lu may def nga kontaanee soo sa taseeg yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa sa message sa bi jeex na rek day ndax ñoom ñëpp moo leen yónni ñoom ñëpp ci moom lañ doon jëlee leer moo tax seen kaawtee bi ñoo indi yëpp ñu ngi ko doon jëlee ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nag su ñëwee na moo tax benn yoon dootu ñëw benn téere dootu ñëw rek day mu daal di ne marhaban mbokk doom ju di ji ndax aadama moom mooy ci aada moom mooy maa bàyyi yonent yàlla Muhammad moom alayhi wa sallam ndax mooy bàyyi mi nekkoon mi nekkoon ni ci nga xam ne tëjëli bi nga xam ne ci la yàlla feeñee ci joon mi mu ne xam mu ne doomu aadama mu daal ñu fay ko mu daal di abat baq dal ci asamaan ñaareel foofa la fekk ñaari bàyyi tax yi nu yaxyaa isa nu yaxyaa isa mu daal di nuyoo kan la jibril kan wa àndat mu ne muhammad mu ne yónni nañ ko yónni nañ ko ñu daal di ndokkeel ko tatagal ko bët ba dal ci asamaan ñetteel foofa la foofa la fekk yonent yàlla yusufa yusufa mi nga xam ne taar yëpp mu fekk ko ne taar taar lépp luy rafet ko kaw àddina genn wàll ga yusufa moo ko feeñoo rek day waaye bàyyi su ko daal wax mu ne su fekkee ne yusufa genn wàll gi la am moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom ab taar yëpp mu wax feeñ ci moom kon nag lu tax yonent yàlla moom mu ne lu tax moom ba nga xamee ne dem na moom nit ñi di fitna ci kawam ba looloo ko dugal kaso looloo tax ñu tëj ko moom yonent yàlla yusufa ba nga xamee ne nañ jigéen ñi ñu daal di ñëw di dagg seen paa di dagg jël seen paa ngay dagg di dagg di dagg seen loxoy rek de ndax taar bu nekk ci moom bàyyi mu ne yusufa dafa taar woon taar bu jéggi dayo kay waaye dafa taar woon rek am ca moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa taru ba pare dal li mag mu ne soo gisee koy ragal bay karkari nit dana ko gisee di karkari mu ne dalal dalal duma dara man nit la bo xamé ben jigen ci mak rek mom moy kuy lek ay sel moy suma ndey duma bur duma duma dara mom yent boobu way soko ko jegee jikko ju tedd ji jikko jikko jikko yéen ya ak moom dootoo bëgg a tàggoo mu ne su dee sax do ko ñemee ndax dar ndax ndax wégu way wi waye nak soko bëgg mom ndax melokaan wa nga xam ne feeñ na ci moom loolu la ëppee mu yonent yàlla yusufa moo tax ndey Aysata way na yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne mu ne ko jig mu ne jigéen ñi sali xaay yooyu nga xam ne bañ leen gënee yusufa dañoo jël paaka yi di dagg seen loxo mu ne suñ gisoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ dagg seen loxo waaye seen xol la ñuy dagg rek day ñooñu ñoo waxoon ne ma haada basharun in haada illa malakun karimun mu ne kaw teef gi ki mi mbindaakoon mi su fekkee ne eh, kii malaaka la waaye su dee malaaka yi de malaaka mu tedd la yonentu yàlla ma ndey ay sa way na yonentu bi ne ko yaa gën a taaru fuuf yonentu yàlla Yuusufa mi nga xam ne moom lañ doon nettali ci ab taaru bët ba dal ci asamaan ñeenteel foofa la dal foofa la fekk yonentu yàlla Idris mi nga xamee moo njëkk a bind mooy ndey bindkat yi moom la ñuy wax axnuut mu daal di moo tax téere yi nga xam ne waa na ci kaw asamaan moom yonentu yàlla Idrisa mooma eh, fukki andi na fa téere bu daal di bët ba dal ci asamaan yi juróomeel foofa la fekk ki rek yonent yàlla Haaruna Haaruna ma doomi doomi bay tax eh, Moussa yonent yàlla Moussa la mu ne Haaruna moom kuñ bëgg noonu am niirawut ak mu yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa ñoom aw xeetam dañ koo bañoon dañ koo bañaanoon ayaane ko waaye yonent yàlla uh, Haaruna moom dañ koo bëggoon moom lañ doon naan koo mbëgg mbokkam moo tax ba nga xamee ne suñ demee ci rañaan ma ba ba kenn ku nekk la fa nga fekk li tax ne mbëggeel googu moom doon na ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bët ba dal ci asamaan juróom juróomeel juróom benneel foofa la fekk yonentu yàlla Moussa mu nuyu kan la kan la Jibril ko àndal mu ne Muhammad yónni nañ ko ñu ne yónni nañ ko mu ne mu mu daal di tatagal ko ñaanal ko yiw waaye dëdd ne muy dëdd rek dégg muy xaacu na allahuma faddalta waa nii yow yàlla yow yàlla gën a leen ko yow yàlla gune gi nga xam ne barki démb rek la gënale nga ko gëna gën nga da nga taxel ci aw xétam lo xam ne bani israel yëpp matuñ lo rek day jibril ne jib yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne jibril ki wax kan la mu ne ko yonent musa doomu imrana mu ne ko lu muy wax mu ne ko da fay xulo ku muy xulo mu ne boromam ñu dal di dem nak bat ba dal ci asmani juroom ñaarel weer wa dal fa fofu la fekk yonent yàlla Ibrahima momi tam mu dal di nuyo kan la jibril ko àndal mu ne Muhammad yónni nañ ko yónni nañ ko mu ne marhaban doom ji teddi ji ñom ñëpp mbokk lañ wax waye moom yonent yàlla aadama ak yonent yàlla ibrahima rek ñoom ñoo wax doom ndax aadama moo jur mboolem doomi aadama yi waaye yonent yàlla ibrahima yonent tamit moom mooy maam yonent yàlla ibrahima yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ndax mooy bàyyi ismaila ismaila mooy maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo suñu askanama foofa la jógee rek day ñu daal di dem jibril ne ma nga wéeru ca sidratul muntaha ca jannatul ma'wa foofa nag la mu daal di nag jibril ne ko sangi bi nag moom fii laa mën a em mu ne ko jibril kenn du ànd ak ci tukki mu te mu mu mu mu mu mu kii mu tax lu ngay dem di ko bàyyi mu ne ko juróom-ñaar fukki junney peeng ci sama kanam yoo xam ne su ma ca demee dinaa lakk ni sawara ni sunkóor di lakkee rek day ci sawara day mu nee nag mu daal di mu daal di dem nag muy dem di dem di dem di dem na di romb mbinaa mbinaakoon yi di romb di romb romb na juróom-ñaar fukki junney peeng yoo xam ne bu nekk rek yàlla def na fa loo xam ne moo am ëpp àddinaa li ci biiram mu ne romb na ay nit ñoo xam ne dañoo rag rek di dem di dem mu ne jibril ma ñii ñen lañ mu ne ko ñii day sang bi ni laa ko xamee ba ma yàlla bindee ba léegi ni laa leen gisee xaw ma fu ñu jógee xaw ma fu ñu jëm da dañuy dem rek te dem bu amul taxawaay mu ne dem na rom ñoo xam ne dañoo taxaw rek taxawaayab jile kaay moom ba nga am na ñoo xam ne itam dañoo rokoo am na ñoo xam ne dañoo sujoot ba mu jàllee mbinaakoon yooyu di xuus dem na ba nga xam ne koo amatut mu dem ba nga xam ne koo amatut mu delloo lépp loo xam ne ci cosaan ci cosaanam ci suuf la mu delloo ko suuf lépp loo ndox la mu delloo ko géej gi lépp loo xam ne safara mu delloo ko mu delloo ko asamaan rek ba dara de sufa lu may nekk fa mu nem jege-jege boromam ba mel nii xala ak xañ ak ñaari xoccam wala mu ne lu gën a jege loola lu kenn dara gën te jege ñaari jëmm lu dooloo xale ak ñaari xoccam mu ne su fekkee ne gën naa jege noonu nag boobu benn jëmm nekk dafa dara nekku fa lu may la fa nekkoon rek moom mu yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu dellu ci lam nekkoon loolu la bàyyi di wax naan nuru awwalul wujudu wujudan wa huwa aslul usul wal ajaaru mu dellu ca loola foofu la fekk borom bi nag mu daal di nuyu ko nag ba ñu daal di fay ko noonu la malaaka yi tahiyaatu lillahi zakiyaatu tayyibaatu salaatu assalaamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah loolu neex ci xol yi bi la ko yàlla nuyoo ak la ko malaaka yi bàkkee ak moom itam lam delloo ba loola nag foofa nag la yàlla mu ne mu mi ngi ko feeñu lu mel ni waxambaane tooyo mu ne mu te mu mu teg teg ci digg gannaawam mu ne mu yeg sedd bi ba nga xam ne mi ngi toll ci sësa weenam yi wala mu teg ko ci kanam mu sëg ko yëg ko ca gannaaw ga mu ne foofa daal fa la ko joxee lam ko jox mu daal di jox ko julli moo tax julli bàyyi mu ne mooy ponki lislaam lépp loo xam ne lislaam ponki lislaam yi juróom lañu waaye bi nga xam ne moom mooy cosaan bi rek mooy julli lépp loo xam ne dinañ ca julli su boobaa dara des ca moo tax ñu ne kuñ teewal ci kanam boromam dañuy seet julli su julli xewenee li ci des mën naa xewen waaye su fekkee julli xewenut dara du ci ewen ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla joxe risaala boobu nga xam ne mooy mooy lislaam moom ñi ko jiitu woon téeméeri junne ak ñaar fukki june ak ñeent ci yonent yàlla yónni na leen andi nañ téeméeri téere ak ñeent yonent yàlla Adama andi eh, eh, yonent Siisa andi na fanweeri téere andi na eh, andi na juróom fukki téere Idris axanut ki njëkk a bind moom itam andi na fanweeri téere yonent yàlla Ismaayila yonent yàlla Ibrahima moom itam andi na fukki téere yonent yàlla Moussa andi na fukki téere soo ko dajalee muy téeméer ak tawreet ak liñ jiil ak zabuur ak furqaan loolu mooy mboolem téere yi nga xam wàcc nañ ci yonent yi nga xam ne alfaka xadimun téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent waaye loolu yëpp bi alquran moom la tënk rek daal di def ko ci téere bi nga xam ne ñoom yonent yi jiitu woon su leen yàlla daan yónni dafay def waasita waasita mooy da ngay xaatif xaatim mooy kàddu goo xëy da nga koy dégg da ngay dégg kàddu ga te doo gis jëmm ja wala mu ebal leen bi waasita malaaka yo jibril andi leen jibril a ci ëpp gannaaw yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu lum lu mu taseeg yonent tey de lim xasee taseeg ab yonent Moussa ci ëpp la Moussa ñaata yoon la la jibril wàcc ci moom juróom benn yoon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent yoo xam ne yonent bi jibril ak kooku moom mës a tàggoog jibril kon mu daal di jox ko téere bi nga xam ne ba nga koy joxe jibril fekkewu ko miraaka fekkewu ko kenn fekkewu ko yàlla si dem na dem na ba nga xam ne dem na ba dara de suba lu may lu may lu may lawoon rek mu dellu ci lam mu daal di jox ko téere mu ne bi mu ñëwee nag ci asamaani ñaareel mu daal di jox ko ay téere ba pare fekk rafetlu na taaye bi nga xam ne moom la ñuy def bala ngaa dellu ci alamu naasut mu nekk ko mu rafet neexlu ko yàlla ne ko soo dama teyee nag soo jullee ba pare nag moom ngay tëjee moy tay bobu nga xamne ne dañ ci nuyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nuyu bo xamne ci arab kenn du nuyu nit ko xamne du ne da ngaa assalamu asalaamaaleyka kenn du ko wax ko xamne ne ku fa su fekke ne julli ni fuñ man di jullee yaa ngi jàkkaaroo yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon kay man ñi nak xam ba legi mi nek ak ñu nak day mom yaronte bobu sallallahu alayhi wasallam dafa fagu rek dafa fàddu rek waye deewut ndax su yalla andi won malaka dañ ñaan ko ñeema malaka su andi won jinne itam dañ ñaan ko jinne limi def mënuñ ko waaye nag yàlla ci yërmandeem dafay jël ku mel ni nit te du nit moom la bu sayri di wax ne muhammadun basharu la kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna hajar muhammad yonent la muhammad nit la waaye dul comme yonent nit ñi nga xam yàlla ko def ci yërmandeem rek pour nit ñi ñeme ko rek day moo tax fukki at ak ñett yi fukki ñi fukki at ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne ci la risala bi di wàcc jóge ci asamaan di ñëw ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moo doon jëmmi sharia lu mu def sharia la lu mu santaane tere sharia la sañ te noppi sax ci loo dañ ko war a wax rek day moo tax lu mu noppi rek dagan na rek day moo tax sharia niroowut ak xel xel nanguwu ko sharia mooy ci yàlla la jóge ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi la jógee rek day moom lu mu def rek yàlla mu ne mu ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidu quwa moom yonent bi du wax lu may lu jógee ci yàlla moo tax lépp lu mu wax rek santaane lépp lu mu tere tere day moo tax sañ ta def dara loo xam ne moom moom la li nga xam ne diire fukki at ak ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne bi ko yàlla yónnee ba bi muy uy ji boromam diggante boobu lim lim def am na ci loo xam ne xel na mu wut a dëpp dëpp wut xel te moom mooy jëmmi sharia lu mu def rek muy sharia lu mel ni jàpp xanaa kay su fekkoon ne dañuy laabal su fekkee jàpp laabal nañ ci jublu sooy raxas sa xol tànk moom nga war a gën a raxas. mom mi jonjog sobe si rek waye ji nga xane ne moy sharia moy so jappé so massa ci ko kon jàpp kon japp la na su fekkee eh, ne bay bàyyi nga xol tank bi kon da nga bàyyi sunna da nga bàyyi sunna rek waye waye wañu ci dara taw waaye so raxasoon tank bi ci xol tank bi te ci ko tam sa japp gi baxu rek day mu ne tax li nga xam dañuy wañu julli ci diggante makka ak ak ak ak ak arafat ak makka ak minan mu ne foofa moom fukki fukki euh, fukki at fukki fukki fukki kilomètre la ak benn te yonent bi wàññi na ci julli moo tax ba léegi dañ ci wàññi julli waaye diggante diggante Makka ak Jidda juróom-ñaar fukki kilomètre la ak ñe ak ñett benn rek moo ci manqué te juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñeent ci la ñuy wàññee julli waaye ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matul matul loolu nga xamee mooy mooy mooy xatte bi soo demee foofay dem da ngay matal julli rek day te Minen ak Arafat ben bi ñaar fuk ñaar fuk kilomètre la ak ñen te ñing koy wañu julli ndax yonent bi ko def rek mom lum def rek yalla ko def lum lum lum tere rek yalla ko tere day mom yonent boobu sallallahu alayhi wasallam mom bis bobu nga xamne mom yalla lepp lo xamne ñew na ci adina bi yus cosaan mi mooy yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa faqé ko ci yalla bay mu ne dafa niroog mu niroog mom ba nga xamne sen différence rek moy ki mom may ki lañ may waaye lu dul loolu rek lu da ko fekk da ko fekk ci pay bi yonent ni nga ko fekkee ci pay bi yàlla ba loolu amee nag lu mu ne loolu mooy zahir moo bu nga xaye moom lañ wax mooy zahir ji waaye baatin ji itam mooy yàlla def ko daf ko xiir ci ci wiirwaay yi nga xam ne mooy alam haahuut ak naasuut ak ak jabaruut ak naasuut ak ak mu ne bu pay yooyu yëpp yàlla oddee na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma nga xam ne moom itam moo tax moom ñoom kenn mënuñ koo jot ak day ba nga xamee ne yàlla moom moom yonent boobu sallallahu alayhi wasallam ci coofe moom yàlla moom la bëgg a bind moo tax mu bind lépp loo xew bind na ko ci àddina bi doomu aadama nag li tax ñu bind ko moo tax yow xala xalakum maa fil ardi jami'an yàlla mu ne kon lépp lu ma def ci kaw suuf yaa tax ma def ko rek day te moom di aadama moomu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu def ko ba nga xamee ne euh, moom yonent boobu sallallahu ñëw wa sallam ñëwagut ñi nga xam ne ci lañ ko yónni mooy nit ñi nga xam ne ñoo ñëw ci nit ak jamono ji nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne ñoo xeet tootoo xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu njëkk ña ca jamono yi aadama ñooñu seen xel yooye méngoowut ak ñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi di seen di seen yonent moo tax damay indi loo xam ne tolloo naag xeli ñooña yonent bu ñëwati daal di dem yàlla daf daan yónni benn yonent ci ci benn xeet wala ci benn dëkk su demee rek yonent ba yëpp dem daal dem mboolem yonent yi nga xëyee nañ ci kaw suuf téeméeri junne ak ñaar fukk ak ñeent ñoom ñëpp seen kaw teewee ñu doon andi ñu ngi ko doon jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax lépp dem na dara desu ca may muy muy Moussa ca etam wa waaye ak Souleymane ca ngelawam la ak yonent yàlla Ibrahima ca am sa mu ne ñoom ñëpp eh, ak eh, mu ne yonent yàlla kii mi nga xam ne moom itam daf doon defar ay daf doon ak Souleymane ca ngelawam la ñoom ñëpp kenn kenn ki ngi doon andi ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa waaye yàlla gannaaw yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waxuma la yonent bi waaye xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kawteef yooyu ñu doon andi yëpp kaw xeetu yonent ñu ngi koy andi rek day lépp loo xam ne dafa tumuraanke woon ci jamono ji ñu toll li àgg ci technologie loolu loolu loolu jamono jooju yëpp amut fa woon day te ñu ngi ko jëlee ci barke bi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba loolu amee rek moom yàlla fekk nag ba mu defaree aadama dafa gannaaw bu mu bu mu gaaree ne inna aradna lamaanata ala samaawaati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaanu ma gaar gaara na ñoom kaw ñoom suuf ñu ne ko yow suñu borom ñun daal bëgguñ nga jël ci ñun cër boo xam ne dafay dem safara rek day mu yónni jibril mu yónni malakul mawti ba mu demee ba nga xamee bind na suuf mu yónni malakul mawt bu de yonent yi mu yónni malaaka yi mu yónni rek suuf dal di joy ne ko maa ngi lay lantalu ci ko ci mag ki lay yónni bul tibb ci man cer bo xam da dafay don cërab safara rek lay mu dal di dem mu yoni jibril yoni yoni jibril yoni israfil ba mu yónni malakul mawti mu dal di ñew mu ne ko may itam maa ngi lay lantalu ci mag ay ki ma yoni bul ma tere def lim may santane dal na ci dal tibb ca egg ci borom borom di ko laaj te moko gëna xam ni mu koy laaj na ko yow nak no def ba sa nawlay ñom ñep bañ nga ne mu gàntal yow nga mu ne ko may tam dama ko wax ne ko may itam bu ma gàntal li nga xam yaa ma ko rey mu ne ko kon nag yow mi nga xam ne yaa ko fay jële yaa koy yaa koy delloo minaa xalaqnaakum fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijakum taaratan uxraa mboolem doomu aadama yi ñu ngi leen jëlee ci suuf waaye suufa soosa ci lañ leen di delloo rek day ba loolu amee rek suuf soosa yàlla def ko fekk ne dafay defar aadama mu ne aadama gannaaw nangu nga ne yow yaay nangu ko léegi googu yow dana la def maanaam dana ma def sa ndigg muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mel ni yaa ko jur ndax ba nga xame ne di nga xamee ne moom yonent bi sallallahu alayhi la nga xam ne mooy mooy doomu aadama doomu aadama ci deret ci ci yaram lañ ko defaree malaaka yi itam ruuxu lañ leen defaree ruuxu yi mooy yi nit ñi moo nekk ci malaaka yi waaye ruuxu yi malaaka yi itam moom itam ruuxu lañ koy wax ruux mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba yàlla bindee aadama ba ba mu demee ba bind ko ba mat dafa daal di def ci moom ruux ruux googu mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko dundal mboolem lu yàlla bind bu koy def gannaaw bu mu dee toqante la man yu gannaaw gi mu doon aw lu mu gannaaw gi mu doon deret gannaaw gi nag ba nga xamee ne cër bi mën na yàlla daf ciy def yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam looloo tax yonentu yàlla Isaa moom a Mariama mi nga xamee mooy ndeyam ma Mariam mësta jaar ci sëy te moo jur moo jur moo jur mu jër Isa te mësta jaar ci sëy waaye nag yàlla dafa tegee àddina bi ni nga xamee nii wut ak ni nga xamee noonu la amee ci toftaloo rek day moom ndi lii nga xam ne moom mooy aada mooy jigéen dafay màgg daal di sëy sëy booba daal di jur doom waaye moom yonent yàlla moom maree ma mooma moom bañ ko def ba ko ba ko yàlla defaree ba pare li nga xam ne moom mooy li feeñ mooy jibril mooy baay mooy mooy mooy mooy isaa ndax mom lañu ñu mu daal di def ci mom rox ge waye li nga xamne deug deug bi nga xeexee moy lu defar yonent yàlla isa moy yonent yàlla ba moy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ruuxu ga nga xeexee mom lañ ci dawal ci mom mu daal dund loolu lañ defon ci aadama bañ ko defare pare mu daal dund ñom ñëpp ñom ñoom ca ruuxu googu nag moom mooy cosaanoo ci yàlla moy leer gogu nga bay bay di wax ne nuru awalu wujudu wujudan wa huwa aslul usul wal anjal mune nak ba loolu amee moom yonent yàlla Isaa ba ko yàlla defaree defar li nga xam ne moom la xel nangu dañoo defar Mariama Mariama jaamu katam yàlla lay lay firi ci seen mi ñu daal di defar ko mas ta jaar ci sëy ba mu màggee mu daal fekk yaay baayam dafa nisaroon ne nisar gii daf ko dafa daf ko def ci jaamukaay yàlla bi du def liggéey benn liggéey lu may lu may jaamu yàlla booba booba booba làbbe moo doon moo doon seen moo diine mu daal di ñëw jox ko Sakariya mi xëy mooy bàyyi taxam mu yar ko ci këram fukki at ak ñeent yoo xam ne mësta góor mësta gis jigéen sakkaat di laa misoog moom ba nga xamee ne mat na ba am mbërëg gis mbërëg daal di dem ci sangu ji rek yàlla ebal jibril jibril jàpp ca loxo bu mu bërëg daal di ëf ko rek mu daal di biir wasin ci saasi ñu ne ko ah Mariama def nga xay mu ne lan la ñu ne ko yow day dañ ne wax ne yaay jigéen ñi Sakariya ci naa ci maan fo amé dom bay mu ne xana wax nañ ko leuf mu ne laaj len ko ñu ne ko bu ne gu juddu ken faragu ko nuñ koy laaje mu ne laaj len ko yonti yàlla Mariam yonti yàlla Isa dal di juddu dal li ñëw taxaw yëkëti baramam ne inni abdullahi atani alkitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa usaani bi saati wa zakaati ma dumtu hayyan demet moom yonent yàlla Isa baay mu ne xamoon na ne de aw xeetam danañ ko danañ ko tuumaal ne yàlla la moo tax baat bi mu njëkk a wax mooy man jaamu yàlla la moo tax baay mu ne gëm yàlla danay nooy ba mel ni soow moo tax yonent boo gis wàll yu donn na ko mu ne yonent mu ne Aboubacar Sadiq keroog ba nga xamee jàpp nañ màng ga rey juróom-ñaar fukki jàpp juróom-ñaar fukki ca xareb xareb xareb ba dara tey daal di ew leen ca ja Abbas ibnu Abdul Mutalib ci la bokk mooy yonent nag li nga xam ne mooy aadaam mooy leen lu ngeen xam ci ñu xasaw ñii aboubacar sadiq ne ko yow ya am ne ko ñii baal leen rek si ay mbokk lañ dañoo bon rek waaye say say seenaw la lañ mu ne ko su mu ne jëlal ci ñoom ah, galal loo xam ne da ko defe jëfandikoo ci benn xeer rek day mu ne am mu ne Omar ibnu Xataab loo xam ci ñii mu ne ko ñii ñoo tax ñoo tax ñu andi ñu dëkk fii ci Medina mu ne ko ñii ba sax doon ak yow li ngay oote yëpp ñoo loo fenloo ñooñu tax ñu génne ñu màkk rek daal lislaam tuburanke ba léegi ñoo ñëw ne bàyyi leen ñu rey ñëpp ku bokk ci ku bokk ci bani at yi jox ma ko man man man man man Omar mu ne ko ku bokk ci bani Hafsa jox ko jox ko Ousmane ibn ku bokk ci bani Haasim jox ko Adi ibn mu ne mu ne mu ne nga Babacar nag moom dafa xolam dafa dëgër dafa dafa nooy moom ku bokk ci mu nga jox ma ma rayal la ko rek day yonent bi sallallahu alayhi wa daal di dugg ci néeg bi. li doon Adam ñuy werante ñu ne xalaati Babacar lay jël ñii ne xalaati Omar lay jël mu daal di ñëw ne yéen ñu xasaw ñii waaye dogal naa li nga xam lool loolu la loolu la Omar ibn Khattab loolu la Babacar wax kenn du jóg fi lu may nga joxe ñaar fukki ñaar fukki ñeent fukki junne ñeent fukki libidoor su fekkee ne Bani Hashim la nag juróom-ñett fukk la ñuy jox fekk Abbas ibn Abdul Muttalib ma nga ca bokk mu ne ko. wàññil ma man bani domi bani hashim yeb man na leen fayal mu ne ko amo barkeeb lola mu ne ko kon dem biñ may japp ci xare wi japp fek nañ ci man ñaar libi libidor, kon jëlal mako ci bolé ko ci rek mu ne ko am nga am nga xaliss bo xéne dang ko jël di ko xeexee yàlla ak ab yonentam ñu dina ko jëlal loolu amo barkeeb mu ne ko xana da nga bëgg sa di yelwan ci bi digg mu ne ko yelwan mu ne ko booba ana hurus nga xam yang ko ba ngay ñëw yang ko sur ci hajjun yak yak yak umul fadli nga ne ko su ñëwee ñu bokk suma ma ñëwut nga xamee lii ak sa njaboot rek mu ne ko ah su ma waxee lii foo ko xamee mu ne ko lii yonent bi sallallahu jibril moo ma ko wax yàlla moo ma ko wax mu ne ko bi borom tey mu des suma borom ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ba nga xamee loolu la nag fekk nag am na ci ñi nga xam ne jàpp nañ leen koo xam ne gorob yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñi nga xam ne mooy jëkkëri zeynabu zeynabu abul asi mom lañ ko mayon moy tawab bi yonent sallallahu alaihi wasallam ci jigen ñi ñu may ko abul asi ba yalla yu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom mu dal di bañ uyuut ba nga xamé ne haramal nañ ko julli di di di di seeg éefar yonent ne kon na ko jox doom mu bañ fekk nak jige do do na jigéeni bir mu mbugal ko ba bii bi tour motax tax kerek bañ ko jappé nak amu dara lu may def lu may and ak éefar yi ñew di xex si yonent bi fekk ci ko ba medina mu daal di jàppale nag mu ne ab mu ne mu ne mu abalaas yi moom suñ ne suñ nañ ko rey Zeyna bu doomam daal di nekk bañ nekk jumaa di julli rek mu daal di ñëw xaacu ne abalaas yi musal naa ko abalaas yi bu ko kenn rey yéen daal di sëlmal ne lu ma dégg ñu ne ko sang bi li nga dégg rek la ñu dégg Zeyna bu sa doom day mu ne abalaas yi mi nga xam ne xeefa xeefa rata je moo doon jëkkëram mu ne bu ko kenn rey nu ñuy def nag mu ne ku gën a tuuti bu sax ci uh, su su gàddoo kenn ci julli rek mën na ko sàkkaa Zeynabu rek day waaye ne leen ko du fi génn lu may mu joxe juróom-ñett fukki libidoor ñeent fukki libidoor rek de ndax moom bokkul ci Bani Hashim ba nga xamee ne loolu wax nañ ko abba uh, kii um, wax nañ ko abal asi mu daal di yónnee ci Zeynab mu ne ko sa baay daf may laaj njot mu daal di jël tak caq boo xam ne Xadijatu mi nga xëye mooy jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo def lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa كرك بامكو تاك داف نكو تاي ما غن ريسي ماكا واي ليب ما ام جوخنا لا كو رك داي مو نك مو دادي مو امنا تياق بو خامي يونت خامي نوكو جي خديجه رضي الله عنها مو دادي جوخكو مو اندي كو ني اندي كو يونت دالي خول تياق كو دالي جوي ني تيغن كو جوخ ام جير جير ما تياق خام رك داي ني يوك ابو العب ابو العاصي مو دادي ديلو ماكا بام ديمي با ماكا نك دافا امون اي بور مو فاي بور يبا اي اي اي mu daal di ñëw nag jébbalu jébbalu bu wér ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu njëkk biñ koy oo bëgg naa dugg ci lislaam waaye boobu dafa amoon ay lëj la yoo xam ne ci ma nga ca màkka su demoon su duggoon ci saa rek dañ naan dafa daw rek dem làq ji doom rawale rawale suñu alal ji rek day ba la moom abal asi abal asi mooy jëkkër Zeynabu Zeynabu yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom ñaari doom la am ñi koy jiwut ci seen dañuy wax ne juróom la te moom ñett ñetti jigéen ñeenti jigéen la am ak ñetti góor rek Zeynabu mooy taawam bu góor Xaasim itam mooy taawam bu jigéen moo ba pare ak ah, Xadijatu ak xëy Zeynabu seen te mooy seen weeru rek mu ne mooy jigéen yi yontu bee ko waxal sallallahu alayhi wa sallam yaay mooy Xadijatu waaye kenn rek la ci xadijatu jurul te dëkkut màkka kooku moom mooy ibrahima bàyyi da daan wax ne kooku moom afriqiyat la moom ci ci ñun la bokk nekkete hoo démb mooy tey rek ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi juróom ñaari doom la am juróom benn yëpp màkk lañ seen ndey seen daa màkk lañ juddoo fa lañ yaroo waaye kenn rek mooy ci dëkk ci benn dëkkul ci benn continent ci àddina bi lu may Afrique rek te itam Ibrahima la la la la tudd dafa mel ni démb mooy tey rek de weer wii nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la sosoon ñu gannaaw bu ko yàlla ñu di ko yar bam am bam tol toll ba eh, abdoulaye mi nga xam ne moo doon seen weeru badar leer ak leeru yonent bi di nes na ci koom su génnee rek jigéen ñi e abdoulaye kaay daanu ci man benn yoon rek ma jox la téeméeri gëlëm yi nga xam ne moom la ñoo jotee ci xisa bu gudd mu daan ñëw ci baayam ne ko takkal ma jabar wala nga wala bul ma yónnee ci biti mu ne ko lu ko waral mu ne ko su ma génnee rek jigéen ñi di ma gaaral am na jigéen joo xam ne Faatimatu dafa jàngoon téere yu njëkk yi te bu xaabaloon gis na leer gi nga xam ne moo nekk ci Abdoulaye mu éne ko boppam moo tax mu ne ko Abdoulaye kaay daanu ci suma kaw benn yoon rek ma jox la téeméeri gërëm yi nga xam ne moom la ko amal xaraam fal ma maatu dunaw mu ko def lu xaraam moom moom dee ma gënal te maag yow séqu njabar ci la demee nag ci baayam utal ma jabar fekk nag baayam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne moom da sayfiyatu ibnu yazan buur la boo xamee ma nga nekkoon cee cee yaman ba nga xamee ne nekk na fa moom mu doon ñoo ilifoon màkka ñu xeex benn xeex ba gañe nag moom sangi màkka yi nag dem di ko ndokkeeli délégation booba abu abdul mutalib bokk ci la bokkoon mooy maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ demee rek ñu daal di gis xàmmekaay bi ci moom yaarifuuna moom la alquran di netti yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum wa inna fariqa minhum la yaktubuuna al-haqqa ñoom ñëpp xamoon na ñu yonent mi des ci jamono mag xaram lay juddoo mu ne daal di ne ko ba mu dee mu ne ko soxla naa la waxtaan ba ñëwee nag lu mu jox gan ñi rek daal jox ko lu ko ëpp ne ko ndax am nga jabar mu ne ko waaw mu ne ko léegi aw ma jabar mu ne ko gis naa ci sa loxo ndeyjoor ndaal ndaal ndaal buur gis naa ci sa ndaalu ndaalu yonent gis naa ci sa loxo caa mooy ndaar buur mu ne ko buur bi wax na ma lu ma neex waaye bëgg naa mu gën maa leeral mu ne ko soo demee Makka yonent bi nga xëy moo ne si yonent yi te xaram lay juddoo amut sikk na maa ngi gën ci maa ngi gën ci xam-xam yi nga xam ne yaa ngi xamoon naa ko ci xam-xamu njëkk yi ne yow yaay doon maamam waaye nag ci bani bani maxsuum rek lay bokk mu ne ko nag ndax takk nga jabar mu ne ko dee mu ne soo demee na nga takk ci bani maxsuum ndax yonent boobu day ndeyam ci bani maxsuum rek lay bokk rek day mu ne ba mu ñëwee rek mu daal di takk xaalatu bi nga xamee moom aminatu ñoo bokk ndey ak baay mu takkal ko boppam ke nga xamee moom mooy aminatu nag mooy mooy mooy mu daal di takkal ko yonent bi keroog ba nga xamee ne Abdoulaye ñëw na ne ko takkal ma jabar mu bëgg loolu ñu doon wax ci moom mu takk mag jeeg rakk yi te ah, mag yi mu takkal ko boppam rakk ñuy yaaram yi ne ne doom ja gañ na baay ba waaye moom itam doom ji nga xamee ah mooy moom mooy doom yi xam xaalatu moom nga xamee mooy mooy magi aminatu moom itam ñoo jur buur yi nga xamee ñooy dawla abbasiya ak dawla umayya waaye ki nga xam ne mooy aminatu itam moom itam ci weeru rajab weer wii nga xam ne moo weeru Cheikh Ibrahima rek day moom itam mu doon ndeke mooy weeru yonent bi sa alayhi wasallam keroog ba ñu ba bàyyi waxee ne hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun badaa li naazirina jamaalu maa ngi ndokkeel Ibrahima ndax weeram ter na ñu ne ah yow ma ana Cheikh Ibrahim ñu ne dañoo foogoon ne sa weer mooy rajab ndax fukki fan ak juróom ci rajab ci la gane àddina fukki fan ak juróom ci bi ci bési anniversaire am ci la ujji boromam rek day yonentu bi sallallahu alayhi li bàyyi di wax ne yaal yonentu bi dafa niroo niroo yàlla ba mu xamee kenn di seen différence mooy kii may rek ki lañ may waaye yonentu bi itam mook bàyyi dañoo niroo niroo ba nga xam ne mooy kaa rek day moom itam ci rab yi fukki fan ak ci la juddu ci rabiul awal ci fukki fan ñaari ci la ci la ci ci la ci génn àddina bi yonent bi juddoo nag bàyyi ne maa ngi ndokkeel Ibrahima weeram tër na ñu ne ko yow dañoo foogoon ne yow sa weer mooy weeru rajab ñu ne konte lee li ko dalee ci rajab ba ci rabiul awal mooy juróom-ñeenti weer yi nga xëy moom la moom la yonent bi dafa ci biiri biiri biiri biiri yaayam rek day kon dafa mel ni rajab bi mooy mooy mooy mooy baatin raj bi lawal bi mooy zahir bi rek eh, kon moo tax mu ne su yonent bi doxee ma dox topp ci kawam su yonent bi taxawee mu dem ma ta am su benn xarit ne ma bëgg nga xam nga nga ma loolu ma ne ko dangaa foog ne dafa am jëm yoo xam dafay dox am jëm yoo xam dafa topp ci kawam muy ñaari nit ma ne ko dee ma ne ko ma déggeewu ma ko noonu benn jëmm jooju nga xëy moo fi nekkoon te bàyyi di ñu ko melal di wax ne nuru awal wujudu wujudan woowu asul usul wala anjaalu jëmm jooja gannaaw dëmmi leer la takk ndeer dana am ci wetam day kon nag su jëmm ji demee takk ndeer bi dana dox rek topp am waaye su jëmm ji taxawee takk ndeer bi dootu dem moom kenn rek day radiyallahu anhu ko yàlla leeralal su taxutoon ak bàyyi duñ xam koy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye su taxutoon ak bàyyi duñ xam koy Cheikh Ahmad Tidiane kon jërëjëfee Baye allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ولقى والخاتم لما سبق يا اخي ولادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله gannaaw bi الله sant yàlla صلى الله عليه وسلم ñu ngi sant Maulana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo tax ñuy xam ku yonent yàlla Muhammad moo tax ñuy ñu tax kan mooy Cheikh Ahmada Tidiane alhamdulilah bi nga xamee ne ci yoon wi la teete woon ñu óor ñu ne mi ngi topp ci tànk yonent bi fu yéeneen su teggi tànk mu teg tànkam topp ci kawam bu mu demee bàyyi ñu ci kon suñu óoree ne ñu ngi topp ci jëmmi Maulana Cheikh Ibrahima kon óor nañu ne am nañ am nañ yaqin ne ñu ngi ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci bëti Maulana Cheikh Ibrahim ci weeram wi nga xam moy mooy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam na xool mi bëti ngërmaaneem yalla ñu yalla fayal Cheikh Mouhamad Nazir waye yalla yalla japp ci njabotam gi ak ñi nga xam ñoo leen di jàppale ak képp ko xam ne def nga sa yëngatu wala sa ñak sa ayna lay ñaan sax ya-, yalla nako yalla yalla nga gis barke bi ñëw bëb ci sew kenn ku nekk su delo ci bopam yalla na ci boppam ak ci yëngatoom ak ci dal li jëlee na fi yokku jëlee na fi dolleeku ci zaahir ak ci baatin yàlla am na loolu mën na ko mi koy defal kenn ku nekk ci yéen nit ki ñaan rek la bëgg li mu bëgg rek la xam waaye xamul sax li baax ci moom waaye yàlla mi nga xam ne moo mën a tànn te moo ñu tànn li gën yàlla nañu yàlla tànn ca lu nekk la ca gën yaa rabbi yàlla yàlla yàlla faj képp ku fi indi aajo yàlla na ko yàlla éwénal képp ku fi indi feebar yàlla na ko képp ku indi jafe-jafe yàlla na ko yàlla jàppanal ku ci dox ci mbir ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ci barke tànt bi ci buntab Cheikh Mouhamad Naziru yal na yàlla xool bëti yërmandeem faj aajo yi ba kenn ku nekk gis ne am na dooleeku jëlee na fi dooleeku ñi ngi gërëm bu baax njabootu Cheikh Mouhamad Nazir di ak Cheikh Mouhamad Nour ak euh, ñoom ñëpp di di di di gërëm jiital Cheikh Ibrahim Mouhamad Nazir ak Cheikh Ibrahim Mouhamad Nour ak ñi leen jàppale ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi dëgg-dëgg dañuy wax ne benn loxo du tàccu su fekkoon ne luñ bëgg bëgg bëgg lu baax ak luñ leen nàmm nàmm ci lu baax suñu amutoon ñu yàpp seen gannaaw duñ mën a activé kon nag képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom maa ngi gis képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi nekkoon ci gannaaw Naziru maa ngi la gis fii sa yëf yi ñoom ñëpp ñu di feeñ di ci ànd ànd boobu yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla dimbale yal na yàlla jotal seen càkkutéef faj leen seen aayul ñi ngi jafe ñi ngi ñi àddina maa ngi ci jafe waaye lislaam yonent dafa waxoon ne dafa tumuranke buy feeñ waaye suy dem dafa tumuranke waaye yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñun ñoo koy sàmm ba méngoo ko yàlla ñu yàlla boole ñoo xam ne danañ mucc ci lépp loo xam ne ay jafe-jafe la soo gisee àddina bi ñëpp a ngi jaaxle ñoom nit ñaa ngi reyante di taal bàyyi mu ne suñ delloon ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi dellu ci alquran kon yëpp dana dellu ca ca na meloon waaye ñi nga xam ne moom la waxoon ci xajatul wadaa mu ne al yawma bis ni ki tey dellu na stadaar ardu ka yawma ka hayati yawma xalaqa allahu yawma xalaqa allahu al ardu wa sama mu ne tey bis ne yëfi dellu na ba dellu na meloon waaye kon tam ñi ngi seedaloo Cheikh Mahamad Naziru di caxat di jotali ko ci baayam di ko wax ne mbooloo maa ngi nii soppe maa ngi nii lan leen bàyyoon ba léegi ñu ca la ngeen leen namoon ñu nga ca nekk yàlla na barke bu wàcc ci ñoom yaa ñi ngi ragal ay feebar ay yoo xam ne ay coronavirus ak lu nekk ca siin ak ca fu nekk waxtu wu ne wax ne waaye xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amatan ak ak toppam Mawlana Cheikh Ibrahim xaasatan ak mboolem ay soppe ak mboolem Afrique yal na leen yàlla musal ci feebar boobu feebar boobu yàlla rek mooy muslal yàlla rek moom moom moo ñi fekkoon ne doole la wala possibilité kon réew yooyu duñ ko njëkkee kon ñun ñi néew doole ci ñun la njëkk waaye ñun yàlla ñu am kaaraanga bu jógee ci yàlla boo xam ne duñ gis dara loo xam ne dafay tudd bélis wala dafay tudd korona wala dafay tudd benn feebar ci feebar àddina te yàlla indi xeewal su fekkee feebar moo mën a nekk foofu ca Chine di wàll nit ñi muy tasaaroo ci àddina bi kon ñaan gu nangu itam mën naa ñëw ci soppe Mawlana Cheikh Ibrahim yi nga xamé dañu dañoo jaayantoo bay bay baay fi ñu jàpp ci loxoy domam ñom mu mu kooku jógee fi ñu jàpp ci loxom ay ay sëtam yalla na len yàlla xol ba ti ngir manam yalla na yàlla fayante yéen kep ku def dara ñi nga xamné ñu amé sécurité bi ak ñi nga xamné ñu amé média bi diko ko yëgale di ko fu na ci adina bi ak ñi nga xamné ñu amé organisation bi nga xamné feñ na bu baaxa baaxa baaxa baax baax ndax li su fekkoon ne kenn nga ko bëgg a def te duudu yàlla xaalis bu bëri la ci def waaye kenn ku ne dangay joxe sa xol bala ngaa joxe sa jëmm kon nag yàlla na jërëjëf leen yàlla nañu yàlla fayal baay yàlla na bàyyi su bàyyee su bàyyi yàlla nañu bàyyi kontaan ci ñun ba kontaan ba nga xam ne bis ba nga xamee ne kenn ku nekk da ngay ñëw kullu yow ma natoo kullu unaasin bi imaanihim yal nañ topp ci sunnatu Cheikh Ibrahim di ànd ak moom mu ne haasihi ummati haasihi ummati yàlla yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla defal yàlla na gërëm ñi ngi gërëm ñi teew fii ñëpp ak di ñaanal ñaari góor gouvernement yi Sénégal ak Mauritanie Sénégal ak Gambie su fekkoon ne ñoom itam jàppale wu kon lii suñ ko bëggee dem duñ ko man waaye yombal nañu ba waa Sénégal ñëw nañ fii mel ni seen kër ci conférence yi ñoo wax ci ngoon doon nañ ci wax relation boo xam ne Alxaaji Abdoulaye mi nga xam ne mooy mu mag mooy Mawla Baye Mawlaana Cheikh Ibrahim bañ ko xatalee ca ca Sénégal fii la ñëwoon ci Gàmbi waaye Cheikh Mouhamad Nasiru ñëw na jëmmal loolu ba nga xam ne gàmmu gi mooy gàmmu gi fi gën a kii loolu lu tuuti la ci xasanaat yi nga xam ne Alxaaji Abdoulaye bàyyi woon na ko Cheikh Ibrahim bàyyi ko Cheikh Mouhamad Nasiru bàyyi ko ay doomam topp ci ak ay imaamam ak ay njabootam ak képp ko xam ne bëgg nga ànd ngoo ci ci ci ci kii bi yàlla buñ tasaaroo yàlla na yàlla dëgëral suñ mbooloo yàlla ñu yàlla musal يالنا يالا اندي خيول فيصل قلي بام فدل اك يالا مو فيصل بوسي بام فدل اك لو خامني ليپ لوني بوجا ديف لي لي ييب كين نيت منا تاخاو رك دال ديف كو يالا لولو جيفو يالا يوم نكو يالا نكو يالا ديفال نيغي تاتاغال سوني غان نيغا خامني يوم لاني توديون يفي نيغا خامني يوم لاني توديون يفي bu jiital ci haaj mishrimi nga xam ne ñëw na xam nga tey ku ku ñëw fii tey mi ngi mel ne yaa ngi ca maatamulaana mais mais soo kon nag tur yee bëri rek waaye jëf ji benn la yàlla ñu yàlla méngoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi